ورعاه وأيده ونصره di leen nuyu nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer wii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne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

رضا السلام ما عند توبا بجسم وقلام كون لولو واني وناني في لو كده نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا سمدي يا الله سالعين قبل الراء والشيني أن فوهن علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دارة المنن يو يبتم دي فيرن رجني سرين بي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 تدخ الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله عند الجوال إبليس إذ ناديته بيا ولي